kañ nuyu naa mon frère fay naa la. yaa ngi am jàmm. sant yàlla baax. ngay waaj la diis. incha aw au Grand Théâtre ak Sidi Diop. le golden boy de la musique ah. dafa neex nga tëgg xale boo xam dafa mën ambiance mën bés bu tëggee mu neex bu woyee mu neex bu feccee mu neex la moo tax bi nekk Sidi Diop. moom matcham dafa neex ndax 90 minutes non stop la amul corner amul 6 mètres amul mi-temps amul jëli ball. boo amul physique da ngay bàyyi. non moom non. Sidi il faut ngay entraîner cent vingt minutes pour fecc ko ndax day jaasir day jaabira day wuyaay lépp lay def mais choix bi li ko waral mooy relation bu ñu séq la man ak moom ndax yàlla dafa dogal yàlla boole ñu mu def ma kom rak mag ma def ko kom rak nit soo koy jàppale te la nga yëngu nga koy jàppale muy tëggal ko événement parce que artiste kenn mënu ko propulser au sommet te amul événement loolu moo tax ñu jël ko tëgg ko le 10 janvier Grand Théâtre waaw. ñu dellu si ci làmb ñu gis fi làmb toll. lamb bu tolloon période bi champion ma mag yëpp dañuy am combat ñu gis mbëri ci bay amaguñ combat ci promoteur yi la wala ci yi la wala ci ñan la. non loolu ci jamono la maanaam jamono ji ñu toll nii c'est le Sénégal d'une manière générale qui va mal donc la lutte ne sera pas épargnée lamb am na fu mu daan toll daan neex mais lépp loo gis y a toujours des hauts et des bas lamb dafa toll nag ci période boo xamante ne bi ñu wax ko ñun ñëpp lamb dafa toll ci période boo xamante ne bi lamb dafa am problème problème nag ku ko jàng ci école solution topp na ci. dama gis ne làmb dafa war am assise nit ñi toog waxtaan xool ne fii mooy problème bi lii lañ war a def lii ko yóbbu ci kanam te ñun ñu nekk suñu biir ñu gën a jàppante jàppalante xam nga ñaari baat olof da koy wax te daa am solo muy jàpp ak jàppalante nit bu jàppee day jàppale mais jàpp rek taxaw yomb na. nga ñëw toog waxtaan. ñëpp toutes les composant de la lutte bàyyiwuma kenn mbër promoteur CNT ñëpp toog wax. kon ko bëggoo ko wax bàyyi ma waxal la ko. est-ce que nekkul mbëri ñoo war a wàññi kase yi. non non du wàññi kase sax parce que ku ne lekk sag lekket la ci nekk la ngay duggee marché mbër mu toog ne nangam laay bëree ku ko amut du la ko fay waaye ku jéem loo mënul nag ba far muy ni la problème doo doo ko defaat. la moo tax ñu laa gis si lamb ji. non temps yi nag moom wax dëgg yàlla boo bëggee dëgg-dëgg damaa pause làmb ba ci kanam a kanam ndax damay bëgg nag su ma tëggee am dara damay bëgg bu ma tëggee gis sama bopp ndax jëndee fukk jaayaa juróom taxumaa jóge Touba li ma ci jot a perte na sëkk barke bu ma gisaatee daal lu ma doy ma ñëwaat. damaa dégg nga naan lu lu leer moo may tax a la. lu leer nañ lu mel ni Sénégal France Allemagne Brésil su ma ko gisut janvier bu ne ma dem Grand Théâtre ñëwaat na ci sama liggéey. waaw naa fii la waree. fay naa la doom day. yaa ngi am jàmm. waaw sant bu baax. tijji nga war a ko. maa ngi ci yoon wi ah. waaw. taxawal nga combat. waaw ñu ngi ci nag mais sooteegul mais ñu ngi ci. waaw mais bu ñu ñëwee na leer. waaw ah, baax na kon ñoo ngi lay xaar. mais rek incha allah nan gën a nan gën a dina gën a ñu gën a toog rek mais yàggadul ñu ngi ci yoon wi jaajëf. waaw. moom nuyu naa la. waaw ah, fay naa la sama xarit. yaa ngi jam jàmm. maa ngi am jàmm bu baax. ana waa ngéwél gi. waaw waa ngéwél gaa ngi fi ah. waaw. tijji nga wala tijjeeguloo. ñoo ñoo ngi waaj a tijji mois de février. février waaw ci ci diggante kan ak waaw ñoo ngi dox ay combat parce que maa ngi doon dox bébé ak Kalmoulour waaw ak bébé Diène mais yàlla sottalagut léegi kàttanu yàlla am naa yaakaar dina sotti waaye da laaj léegi am sens muy le 10 sama doomu nday di ko def muy Sidi Diop fee ci Grand Théâtre ñu ciy woo axlu lamb di ci woo Sénégal gëpp parce que ñun amuñu lu dul kanji mi sunu xarit la sunu nawle la kon bu xewlee yàlla dogal mu woote lu toll ni Grand Théâtre Sidi Diop waykat boobu nga xam ne Sénégal kenn dàq ko cee way ñëpp ko bëgg ñëpp ko bëgg. dem mu toj na 6 déggoo ma la xalal la boo xam ni macha allah yaa ngi am na yu bees yoo xam ni nee na la diis la koy génne te ñoo ngi ciy woo Sénégal gépp daal ñun promoteurs yi de la lutte. jaasi moom ci lañ ko nar a tëjee. ah jaasi bi ci lañ ko nar a tëjee. waaw non man xam naa loolu. te moo fi dàq jaasi bi nag. bàyyi liggéey wax maa la wax lii. wuyu ma doomu géwal laa yow tamit. wax nga dëgg wax nga dëgg. doomu géwal laa lépp lu géwal di def rek man naa ko. te dafa mel ni nag le 10 làmb ji la ñuy yóbbu Grand Théâtre. non ñëw. non waxuma la promoteur waaye yëpp ay ñëw Balla Gaye day ñëw Modou Lo Sénégal gépp ay ñëw mbër yëpp ay ñëw am ma seen gars yëpp macha allah ñoo ngi koy waaj daal di woo ñëpp. kon ñu joxante dig daje le 10. Grand Théâtre Grand Théâtre ak Sidi Diop Kañ Production mon ami mon frère jaajëf. ok